l'oblige. effectivement bi ngay wax yëpp dama déglu. ma ni la kon boobu benn bokk yaakaar moo auprès de 500000 voix. ma ni beneen bi. je reviens da ni. dialogue bi dama bëgg man dafa lu may laaj dialogue bi. dañ ni président dañ ñëw leen ñu waxtaan. d'ailleurs pour bañ ñu soupçonné ma lu leen neex nañ ko waxtaanee. mais ku demul yaa tooñ fii ku fi ñëw dañu la invité. waaye mbedd mi ku neex na ñëw. déjà on choisit délibérément de ne pas y aller. am lu ñu dialogue président waxaat ni taalal na loxo nga génn ni su ma bokkul danaa taal dëkk bi mais président li muy wax dëgg la ku taal université dañu la war a teg ci yoon ku taal BRT bi war a teg ci yoon du yéen yoon nañu respecté constitution yéen wax la waaw ku respecté constitution war respecté yoon justice dëkk bi amul yoon ñu ne taalal nañu loxo bi bu mu leen waxtaan ngir ñëwul beneen problème ñu président de président ban problème la am ak Ousmane Sonko état ban problème la am ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo am problème ak Mame Mbaye Ousmane Sonko mu am problème ak Adji Sarr lu ci yoonu Macky Sall dans ce pays aussi il faudrait autant on peut permettre aux gens d'être exigeants sur le président sur soi-disant mu respecter constitution encore que bokkul sama position mais noonu la ñu war a exiger yoon wax ñu def ko vrai ou faux amul ci benn yoon dialogue bi encore ma wax la président waxaat na ko fii léegi maa ngi ko ni tàllal samay loxo da bëgg mu wër ci mbedd mi di seeti nit ñi yoon bi gaa ji wax na ko léegi. le président a tendu c'est le chef de l'État bi mu ko tendre sa main am na ñu demul dem nga ne dañu demul parce que dañu teg loxo Ousmane Sonko du ñoom ñu ngi dem congrès ana Ousmane Sonko tey la guddeem gën a lëndëm te terewul ñu ngi dem congrès pour inscrire seen président la tere woon dem bële tey la gën a yées te terewul ñoom ñu ngi dem fal seen candidat pour dire comme ni ko Gadiaga waxee bari na ñu fa nekk di wër bu nu sañoon ni Gadiaga waxee la Ousmane Sonko dem malheureusement moom itam habité par l'inexpérience parce que souvent on sent trop de passion ba muy des dérapages de langage muy wax ñu koy pousse ñëpp ku nekkee nit ñu ngi def tournée Déthié et ses hommes sont de faire seen tournée di waajal seen candidature maire de Mbodj mu ngi waaj woote pour def candidature au plan est-ce que moral bu fekkee ni la taxoon demuñ ca dialogue ba mooy dañ koo convoqué waaw ku ñu tëj ku ñu ne di ci yoon ku ñu consort est-ce que jar na nga dem def candidature je parle de moral ku bañ lii kay war a mën a bañ président Macky Sall li mu wax. defe naa ni képp kuy sénégalais ki nga war a ànd. te nag ma wax la benn affaire tous ceux qui ont cassé n'ont jamais construit quelque chose dans ce pays. prends tous les partis amul benn parti bi mos a participer teg bii ci réew mi bëgg ko kase amut amut ñi bëgg kase il faudrait que la loi soit très dure sur ça bu ñu transiger bu ñu daw parce que en réalité su fekkee dafa am des incivismes université bi kan ci ñun moo mun a accepter xaw université comment nañ ba commencé woon ay aké suñu site du gouvernement fi ndox mi nekk ñu bu ko dem taali mais loolu dañ ko war a condamné nañ koy condamné mais mu fekkee ni malal bi faral euh, waa yeew yi parce que gis naa bi muy tànn candidat yi muy cité cité kenn lu gars yeew yeeg yooyu cité wuñ ah non non non c'est une manière c'est juste